l'affaire Ousmane Sonko aji saar noo koy dundee. ah ni ma koy dundee de jamono tey jii. waaw mooy euh, di euh, tout simplement am naqar. waaw naqar bu rëy rëy rëy. Mhm. parce que naqar bi ma am mooy damaa bokkoon ci jigéen ñi nga xam ni danoo xeex. Mhm. criminalisation du viol. ñu am suñuy rakk yoo xam ni 2018 dañ leen faat donc Binta Camara ak ñeneen ci viol. Mhm. faatin yu ñaaw ñu ànd ñun ñëpp xeex pour que euh, déli bi doon crime. bañ a nekk délit ba ñu am ko daanaka dañoo def loi bi rek amuñu lu ñuy fay lu du daal di jël benn genre simulacre de dossier boo xam ni tey tax na ba suñu rakk yéeg suñu doom yi képp kuñ ci violé sax bala ngaa waxati di nga am di nga am di nga am tiitaange ci yow parce que kenn ñemeetul tudd turu viol parce que dañoo jël viol banaliser ko politiser ko teg ko ci place publique bi ba léegi xale yi ndaw yi sax sama doom yi sànk rek école dañ ma doon wax lu ñu doon waxtaanee ci affaire ay viol ak ay thèse ak ay yu demee noonu loolu nag am naa ci naqar lool parce que loolu taxutoon ñun ñu xeex pour am criminalisation bu ñu nga doon xeex ñun c'est pour que jigéen ñi libéré pour que jigéen ñi ñu bañati leen boom pour que ku leen di ku leen di boomati wala di leen sàkk wala di leen violé nga xool bu baax xam ni la la ciy fekk la la ciy fekk euh, euh, crime la léegi boo xamante ne sanction yi dafay lourd te di nga ko réfléchir à à à deux nag gis nañu ni nga xamante ne noonu nañ ñu fayee criminalisation foog naa boo bokk naa ci ay moroom bu sénégalais yoo xamante ne rafetlu wuñu loolu alors d'accord kon li ñu ko li ñu ko ñàkkal fayda pour yow loolu rek moo la ci naqari moo ma ci naqari waaw dama jàppoon ni au moins euh, en tant que jigéen dëgg la wax nga ko mm-hmm. moo question bi moom moo nekkoon far nga ak Ousmane Sonko dëgg la waaye jigéen nga itam Adji Sarr nekk jigéen mm-hmm. moo taxoon ma ni bi nga déggee itam président Ousmane Sonko génn ci audition bi def sortie bi wax lu jëm ci wàllu test ADN bi nga xam ni sollicité woon nañ ko pour mu def ko mu bañ ko ndax loolu itam da nga ànd ak moom. waa man damay rectifier rek ni faruma ak euh, Ousmane sonk ci viol <coughs> man dama far ak dëgg. non man man waxuma la da nga far moom ci. waaw ah, da nga ni ma dama ànd waa dama ni fii euh, dama far ak moom ci politique bi. waaye ci dossier bii man dama ànd ak dëgg. ànd ak les faits ànd ak li nga xamante ne man loolu laa xeexoon pour ñu nangu ko muy viol doon crime mm-hmm. te viol. Euh, ci li ñu lu ñu xam ñun ba xeex ko ba ñu ne nañ ko def crime parce que dañu xam ne viol dafa nekk loo xam ni des fois da ngay nit dinañ ko violer sax ci biir sa sëyam ndax viol dafa nekk lu xóot dafa nekk loo xam ni dafa tabu ci suñu société du wax mooy tax nga prouver viole du jooy moo tax nga prouver viole du yuuxu mooy tax nga prouver viol viol li koy prouver mooy ay fait matériel mooy ñu sàkku nit ki violenté ko liy prouver viol tamit ba tax na man mënumaa far ndaw si nga wax mooy certificat médical te certificat médical bii génn fii te docteur Alfousseynou Gaye joxe ko dafa nekk loo xamante ni dina rak dafa dëggoo li ma dafa dafa am un préjudice bu muy def suñu rakk yi ak suñu doom yi parce que tey képp ku ñu violé ci di nga ragal man est-ce que su ma demee hôpital dinaa am certificat médical boo xamante ni moo ko mën a prouver parce que nag viol du ay plateau télé ñoo koy prouver du ay damaa far wala faruma du damaa bëgg wala bëgguma li koy prouver mooy ñu mën a fekk ñi nga xam ne mooy seen liggéey muy ay expert ñu ne diw mii dañoo egg ci kawam diw mii jamono ji mu waxee ni dañoo egg ci kawam am nañu ay preuve matérielle yoo xamante ne moo tax ñu dal ci kawam à partir de ce moment man leneen lu topp ci dossier yi intéressé wu ma man à partir du moment où médecin légiste bi nee na rapport amul te ma xam ni viol boo ko waxee te nga tudd ko ci sa gémmiñ c'est parce que da ngaa am rapport physique yi ak nit ki ku amul rapport physique ak nit ki man du ma dem di luqati leneen ci ginnaaw li may jàpp kay xam nga mooy lan te moo tax itam ma soutenir Ousmane Sonko mooy un adversaire politique bu ñu bëgg a liquider parce que comme li may wax rek bukki bi màttoon Khalifa Sall matt Karim Wade moo ne fii ba tey te bukki boobu président Macky Sall la tudd bukki bi bëggut a am euh, adversaire bëggut a am ku ko remplacer bukki bi liggéey na ci dëkk bi loo xamante ne ragal na moom ginnaawam te ma jàpp ne nag Pape ñun ñëpp am nañu responsabilité ci dossier bi parce que li am solo ci réew mi bëri na. président Macky Sall dafa nekk en fin de mandat scandale yi bëri lool dëkk bi metti lool mais bu ñu bëggee ñun accepter dugg ci jeu yi mooy jeu de ping pong man may mun a bësa duma ci dugg d'accord alors <clears throat> yow dëgg nga at àndal ñu nga jàpp ni euh, nga jàpp ni par exemple mënoo ànd ak Adji Sarr mhm. parce que da nga jàpp